fan yi ñu ngi def euh, taxaw seetlu ci benn mbir boo xam ne moom mooy mbirum xaalis te Sénégalais yi li leen gën a yitteel jamono bi surtout ndaw ñi moom mooy xaalis ñu nekk ci période événement diggante korité ak tabaski Euh, boobu nag gars yi dañ ciy def rox ndollu euh, di ci génnee xaalis yi nga xam ne baaxul te moment bi euh, way xarala yi tabaarakallaahu surtout nag way yàq yi la ñuy wax ñi nga xam ne dañuy dañoo nekk ci domaine bi nga xam ne yàq rek la ñuy faree ñu xarala lool mën lu nekk daanaka lu nekk original dañ koy mën a tëggaat ba mu niroog original comme sama genre gi ñi ëpp ci ñu xaalis ci mbedd mi ay innocent lañ su ko defee nag foo phobie yi nga xamante ni gars yi génnee nañ ko loolu ñu ngi koy ñaawlu waaye tamit di wax état bi loolu moom moo ci war a taxaw jël ci ay matuwaayam ba mat sëkk waaye xaalis moom jàpp naa ne képp ku ci yëngu suñ la ko joxee boo gëmmee euh, suñ la ko joxee boo gëmmee yor ko sax bu dee ab billet la war ngaa xam xaalis bi xaalis bu baax la walla beneen bi am na tamit ñu ciy dund jafe-jafe yu metti ñaare di nga gis ñu jox nit xaalis te xamul liñ ko jox mu dem yóbbuwaat ko feneen kim ko ki mu ko yóbbuwaat kooku dafay woo police mu teg ko loxo te du mos a xam ki ko ko jox loolu dafay am sax ba ci oto yi dangay ngay dugg oto di voyage yi nit yor foo biem wala mu yor li nga xamante ni sénébar la lu ñuy tere ñu yegg si ci montage mu tegal la saagam wàcc ndànk di saale pour romb arrêt bi yéegaat ci oto bi léegi nag kooku su ñu ko tegee loxo dafay def ay at yu bari ci kaso gi xeet yu mel noonu dafa bari Sénégal boo demee ci kaso bi bari na ñoo xam ne dañ leen téye ndax yu mel noonu yoo xam ne yow doo ci dara da nga bokk ak nit oto rek ngeen séq relation jàmmi Sénégal ngeen waxtaan kafre ñu jékki-jékki muy la xoolal ma sama saag gars yi daal nu nekk sax dañ koy def ba ji jox la kaasu kafe nga naan nga nelaw ñu jël sa matériel wàcc moom